jërë ngeen jëf gan gi woon ci réew mi démb ak bërki démb yéenekaay yëpp xëy nañu ko gu mu ñibbi ubbi l'observateur njiitu réewum Chine di Xi Jinping ba mu falawaatee ci weeru mars ak léegi nganam gu njëkk ci Afrique de l'Ouest yéenekaay bi nee nañu Sénégal la ko tàmbalee keroog samedi la fi yegg démb ci dimanche yi mu ñibbiwaat yooyu yéenekaay bi di l'observateur nee nañu ci nganuk ñaari fanam gi bari na la mu fi bàyyi bokk na ci ay accord ngirub ci diggante Sénégal ak ci wàllu wu nekk nag ci fan yi mu fi def it ci la ñu déggee président Macky Sall mu ne 2005 gi Sénégal ak Chine tàmbali waatee seenub jëflante réewum Chine dugal na ci Sénégal 1206 maanaam junni milliards ak ñaari téeméer ak juróom-benn te xaalis boobu li ci ëpp toll ci 963 milliards ci diggante 2012 jàpp 2018 ci la ko Chine dugal réewum Sénégal soleil national nañu fukki accord la fi njiitu réewum Chine signé ba noppi nag ne léegi dafa bëgg Sénégal ak Chine jàppante loxoog loxo mbagg ak mbagg ngir àndandoo liggéey la Sénégal nañu ñaari réew yi mu di Sénégal ak Chine def nañu jéego yu am solo ngir jëm ca kanam Le Quotidien xëy ko dëggal ba noppi tegal ñu ci ne nationale bi chinois yi doon tabax ci réew mi nuppi na ba ñu jël caabi ji jébbal ko njiit réew mi président bu Chine di Xi Jinping la ko jox moo ko jox président Macky Sall direct info nañu moom président Macky Sall feebar bi mu faj daanaka mook moom a maase ndax def na juróom fukki at ak juróom-ñett réew mi di jooy arène nationale yàlla def na Macky Sall moo ko fi def moo ko liggéey liggéeylu ba mu sotti jot na ay caabeem journal bi nañu waaye président bu Chine ñàkkul ne bu delloo ci am réewum dana laaj Sénégal askan wi fan la ñu nekkee ana lan moo tax ba mu ñëwee aéroport kenn ko ndax ba mu wàccee ci aéroportum ay benn ni nit ñoo fa nekkoon ngir doon ko teeru responsable APR yi ci Ndakaaru direct info nañu fu ñu ne woon daanaka mouvement de soutien yi ñoo ñu ci génne mouvement de soutien yi ñoo tee lambay ñaaw te it ba ñuy def remise kele arène nationale bi bu dul woon ak waa ale Kaza it xew wa dana yarax lool journal Source A nañu président bu Chine di Xi Jinping Macky Sall da ko sambay mbayaan ba xolam sedd may sa baabu di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ak ni muy doxe ne journaliste Source A yi ak lu mën di xew daal France ndax France du tong fu dara nekkul te buy jëflante ak yow day mel ne ku yor ab lingomam dalay nal ba nga set wecc mu sànni la ci àll ba te France boo yoree loo xam ne da ko yitteel attan naa faste yi sikkim nit ñi dëkkee giita ngas ngir mu xàll yoon wu mën a jaar ba jote ci lu mu bëgg may sa baabu ne looloy France ñoom waa France l'observateur nee nañu ci xët mu njëkk dóorati nañu Sénégal ak njiitam Macky bu ne weng ndax Union européenne dañoo bëgg a taxawal boo xam ne dañu ne ca léegi képp ku yoreti passeport diplomatique bala ngay ba ñu ko waxee France da ca ànd ca bu gaaw Espagne moo ca dëgg tànkam nekkoon budul woon loolu tey jii képp ku nekk Sénégal yore passeport diplomatique boo bëggee dem France da ngay wuti visa wal fa jiri waxtaan wu mu def ak bay di añ jiital conseil national patrona moom la xëyee nee na entreprise yu CNP yi état bu Sénégal ameel na leen bor bu toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-ñett yi ñu bëgg a defaree porub Sendou bi les éco nee nañu nga ndax waa ji ñu jox marché bi jox ko ñetti téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom ñett ngir mu war a defar poorub Sendou bi ba noppi yore ko ci diirub ñaar fukket ak juróom waa ji daam jaane la tudd jiite entreprise bii di po waaye waa ji xamul dara ci mbiri poor ak mbiri environnement bañ na ko ba ab jaaykatu fëgg jaay la woon reportage bu waa teewee 5 def ci moom moo ko feeñal moo ko weer ba mu weeru te it marché ba ba ko koy jox dañ cee génne waa ARMP di autorité de régulation des marchés publics ministre de la pêche ak économie maritime du Omar Gueye les ba ñu ne ko ab ancien jaay moom ngeen jox ñetti téeméeri milliards ak lu ngir mu tabaxal leen poorub sendu bi la Omar Gueye tontu moo di loolee lu ca nekk léegi ko nañu li ñëpp laaj nag rawatina waa séndu moo di kan mooy Dame Diané nañu bàyyi daam Diané te seeti Fatou Diané Gueye mi ngi ci Vox Populi mooy njiital plateforme émergence au féminin Vox Populi nañu moom ndaw si wàccee na Jurbel bërki démb responsable politique APR la ca place Alpha Thiongan bu Njaareem fa la woote woon dajale fa junniy jigéen yu bàyyee ko ci département bu Mbàkke jël financement bu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki millions 450 millions menacé ko jigéen ñi ngir ñu liggéey njiitu réew mi di Macky Sall réew mi quotidien nee nañu ma liggéey lu mu man ngir jëlee Aïda Ndiongue ci parti démocratique Sénégal yóbbu ko ci langam nañu langi ci lamb ji ak sunu lamb mi xëy dalal Balla Gaye 2 Triple S doomi Double Less ma nga fa xëy mel ne gaynde ci kaw Modou duloo yekk na ko musiba ak mbelengaan mbii fa foore ko fa ba xolam sedd Balla Gaye 2 nee na ki tëgg revanche bi xamul sax li mu def mi ngi ko tëggee ci jamono ji mu jotee te moom Balla gay 2 daan Modou Lo jaral na ko lu nekk Triple S doomi Double Less ji mu di Balla Gaye 2 tegal ci waa sunu bu ne leen bés bu ma jàppee Modou Lo danaa ko duuma ba yàlla fóoti sagaram